leen ci ànd beeg euh, télévision Futur Média ci seen émission faram-fàccee ñu ngi leen nuyu bu baax nuyu sunu gan Bougane Gueye Dany salaamaaleykum Bougane. waaleykum salaam Babacar. njiital euh, mouvement citoyen gëm sa bopp gërëm la kon ci li nga nangu wuy si waxtaan ak ñun. jërëjëf di la sant ci dalal bi et di nuyu waa kër gi euh, ci accueil bi ñu ma defal. Mhm. Bougane gu ñu dégg sa kàddu. gannaaw euh, tiis wi dal ci sa njaboot fan yee dal ci euh, askanu Sénégal génnuk àdduna Thione Seck euh, ci ni mu toll ci réew mi jaratul junjaat waaye ni nga mbokk ak moom ndax li ngay denc doomam ju jigéen bu leen nga jël kàddu sénégalais yi dégg la gannaaw làqoom loola ba mu amee loo ca yëg ak loo ko dundee. alors maa ngi lay sant bu baax Babacar di ko jàll Sénégal di ko jàll Afrique di ko jàll ñëpp ñi nga xam ne dañu ko bëggoon safoo ko Thione il a fait de grandes choses dans ce pays au-delà de du parolier bu mu nekkoon ci un éducateur et à travers ses chansons nit defaru na ci ba tey kon monument la ci Sénégal di ñaan suñu boroom teeru ko ci aljana yu gën a kawe bu ñuy wax ci boroom kër gi bu ñuy wax ci papa bi bu ñuy wax ci euh, maam bi mu doon ci suma njaboot ak ñeneen sëtam nit la koo xam ne ku bëgg njaboot muy vide bu énorme boo xam ne demam créé na ko ci famille bi mais nit ñi am dëgër lay ndax wéetuñu benn yoon Sénégal jàppale nañ ñu ci demuk coon gi ma gëm ne man njabootam wéetuñu benn yoon parce que dama nekk ci biir gis li ñuy dund gis aussi nit ñi ak fu mu mën a doon muy kilifa diine kilifa aada euh, ñi nekk ci euh, administration ñi nga xam dañu nekk ci monde de la culture lu le sénégalais lambda nit jóge fu nekk ma gis juróom-ñetti fanam bi passé ay nit jóge fu nekk nit ñi ràng fil bu gudd ngir ziyaar ko ci bërëbam donc yaakaar naa ne loolu ku nekk ci ñun mu ngi koy ñaan. Mm-hmm. li may sàkku rekk ci Sénégal. di ko sàkku ci ñi nga xam ne suñu borom mu ngi leen di déglu mooy ñu ñaanal njabootam ba ñii mu fi bàyyi euh, ñu sut ko ay fan waaye ñu ñaanal leen ñu jubu ñaanal leen ñu gën a juboo sax lay wax ñaanal leen ñu doon benn ñaanal leen euh, lépp lu ñu yuutu ci wàllu héritage bi nga xam ne euh, leg la bu fi coon bàyyi leg boobu ki nga xam ne mooy Wally nekk ci kaw di def la baayam doon def suñu borom def mu sut baayami fan te euh, gàddu flambeau bi yéegal ko ci kaw pour le bien du Sénégal pour le bien de la culture. Mm. ñuy sàkku ci ñëpp rek ñu ñu ñaanal ko. duma duma yam ci coon rek euh, xam nga bërki démb la du Ndiaye dos am at ci biir suuf mu doon suñu collègue. ñun ñëpp ñu xam ko xam ko ci dëggoom xam ko ci pas-pasam xam ko ci bëggam Sénégalam euh, moom it ñuy ñaan njabootam yàlla dolli leen xolu muñ li nga xam ne aussi moo fi xew fan yi di ñetti nit ñi nga xam ne génn nañu àdduna ca caaro yi ñu ngi leen di jaal seen njaboot. nappkat yi ah ci nappkat yi. Hmm. xëy na ci biir débat bi dinañ ci ñëw parce que yooyu yëpp ay dégâts yoo xam ne ay décision yu ay nit jël te bàyyiwuñu xel répercussion ak conséquences yi mu mën a am. Hmm. Euh, di jaalit ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañu seen doom ci euh, jafe-jafe fitna gi fi amoon cafan fan ñu génn euh, ñuy ñaan ñoom it yàlla teeru leen ci aljana yi gën a kawe. Hmm. amiin Ndiaye Doss mi nga junj sànq ñu ñëpp ñoo ko bokk sunu naataango journalist hmm. kon am na at ci suuf. Euh, sunu xel yëpp a ngi ci Aïda ak njaboot gi. Mhm. Euh, nga tuddee ko studio. Mhm. Euh, ci bërëb bi nga xam ni moom la ñu woowee des médias di bërëb bu tasum xibaar boo nga xam ni yaa ko sanc di Sen TV Zik FM ak yéenekaay bi de la Tribune foofa fan yee Ousmane Sonko ñëwoon na fa nemmeeku si leen ni ko defee ci bërëb bu tasum xabaar yu yu bëri gannaaw. Euh, li tribunal sumb ci ay mbiram ba def ko lu ñu naan contrôle judiciaire bàyyi ko. Mm-hmm. yëngu-yëngoom. Mm-hmm. mi ngi nemmee ay way politique di nemmee ji bërëbu tasum xabaar yi. ba mu mm-hmm. ñëwee des euh, ak li ngeen seq ci ak la nga jiite bërëb ba seenuñ la tax. alors <laughs> je crois que explication bu simple la Ousmane Sonko ba mu jógee di dem des médias. des média groupe de presse la demoon seeti demu doon seeti Bougane Gueye il faut rappeler que Bougane Gueye président conseil d'administration la ci biir des média donc ba muy jóg man taxuma ko woon a jóg ñi nekk dans l'opérationnel la rédaction euh, les journalistes euh, les rédacteurs en chef la coordonnatrice des rédaction le directeur de l'information ñooñu la demoon seeti kon yaakaar naa ne euh, sama ñàkk fa teew loolu moom moo ko moo ko waral euh, ni mu ñëwee fii euh, seet si leen ma saw leen ma ci profito d'ailleurs di leen ma saw ci dégâts yi nga xam ne am na ci seen kaw ñun aussi peut-être qu'on l'a pas relayé mais au niveau de des médias am na seeni oto yu ñu kayase dañu mooy li ñuy wax rek ay du yam ci bopp borom kon dal gi ñuy woote ci réew mi euh, tey jii lañu ko gën a soxla jàmm ji ñuy woote ci senegal tey jii lañu ko gën a soxla je crois que loolu dong moo expliqué euh, teewuma euh, ci loko yu D-Média jour bi nga xamee ne Ousmane mu ngi ñëw foofu pour masawu leen. Mhm. mais dinañu jaaxal tamit tuuti lu tax teewoo ca ndax bu dee sax ci wàllu politique gi itam tournée yi muy def. yow gisaguñ la mu seet si la euh, est-ce que yow da nga am euh, jafe-jafe ak wóoroog Ousmane Sonko. mais non du tout du tout euh, def na mu ngi def le tour je crois normalement vendredi à 11h la war a ñëw seet si mouvement Gëm sa ak njiitu Gëm sa bopp donc c'est juste pour dire semaine bii ñu génn dañu nekkoon ci. tiis woowu euh, génn ko àdduna Thione Seck am na loo xam ne mëne su ko mëne su ko woon a boole je crois que euh, loolu moo tax ñu puusoon ko mais euh, moom si boppam bàyyi na xel gëm sa bopp mouvement la bu nekk fépp ci réew mi am taxawaay boo xam ne taxaw nañ ko ci réew mi am représentativité boo xam ne am nañu ko ci réew mi bokk aussi ci ñi nga xam ne engagé nañu ci